te biñ nekkee xale dañ daan wax ne toppandoo yàq na doomu jaambur te mag ñi ne roy daax ñun nag du ñooy roy lu baax lu bon rek la ñooy roy hmm. moo indi ñun waajur yi ñu di jaay suñ doom yi di leen jaay di leen dugal ci loo xam ne musiba laa indi ëllëg euh, maa ngi fàttaliku suma yaay ju baax ji li ma daan wax bi ma nekkee xalel mu ne daf daan bañ may dem xaaraani ñam <laughs> ki doom bu góor boo miinee xaaraan dootoo mën a yóbbu sa kër bon te daf ma daan wax ne tamit ganaar buñ gàddu xamul yoon bu sori mooy xale yi tey buñ la gàddoo ba ci kanam mm-hmm. yow it war ngaa mën a gàddu sa kilifa yóbbu ko bon waxtaani tey bi am na solo ñu ngi leen a gërëm di leen sant di sant déglukat yi ngeen xam ne waxtaan bi li ko waral muy xale yi pour ñu mën a jag tey jag ëllëg jërë man la si Sissoho National Youth Council di wax ne daal topic bi ngeen naa eh, discuss tey am na solo boo xam ne daal wax na affaire bi war na yaatu daal mm-hmm. um, suñ dee child sex tourism loolu fanaa topic bu baax mm-hmm. te ñëpp nangu nañ ne am na touriste yoo xam ne ñu ngi ñëw si faana boobu la ñoo ñëwee waaye tam am na si touriste yu baax ñoo xam ne ñu ngi ñëw ñoo xam ne bokkuñ si faana yooyu noonu waaye boo seetee affaire bi daal man dama ko demanee rek sex trade lañ war a waxtaanee sax waaye dañ dem toll foo xam ne nekkut tubaab yi rek waaye fu mu ne fii rek suñ seetee suñ dawee ñu bari yaaxa nañ si affaire sex trade te ñoom léegi demaatuñu si mbiri hôtel yi rek comme ni ñu ni nekk di ko waxee bu ñu seetee affaire private lodge yi sax ak nga compare leen ak hôtel si daanaka sax ñoom ñoo gën a bari hôtel si ndaw yi ñoo dee dem di taxaw si biti am na gëstu bu amoon keroog ñu amoon benn programme ku ku ñu doon waxal ñuy wax ne ñu dee dem 55 pour cent yëpp ay ndaw lañ waaye si ñoom ta boo seetee tam am na 77 pour cent yoo xam ne ñoom ñëpp ay boroom jëkkër lañ ñu dee taxaw taxawaalu si biit hmm. kon nag suñu société bi fu ñoo mujjee. soo war am 55 percent ñëpp ay ndaw lañu waaye ñoo xam ne ñu dee dem diran si biti 77 percent ñoo xam ne ñu ngi seen néegi sëy kon nag suñu société bi daa am na problème on a lii daal dafa jar na daal ñu wax gën yaatal waxtaan bi bi benn yoon bi ah, waaye dafa toll foo xam ne tam kilifa yi daal caalit nañ <laughs> ngeen baalal ma parce que ndee basin wax na leen lu am important yow kilifa nga jur sa dom so koy jox pañe nga ne ko demal marché lo ko butut ah macha allah lo leeral nga ko mbir mi dal fu na wara a dem. waaw. te amna kilifa yo xamne tam sen joboti xale ñu ne la ne ah yaay lonj wala ni nga nekkoon xanaa gisuloo sa moore lu ñoo def. Hmm. te li yeb lu am la. dëgg sa dom ana gisuloo sa moore lu ñoo indi yow ak no melni wax nga ko fan la wara jaar. kon nag yow kilifa yow yaa di safoon xale bi. su demee mu jëlee si biir walla am problème nga ñëw nag yuuxu si kawam ne no bugg a jaxasoo néeg bii yëpp di saaga yaay ji te dañ dem toll foo xam ne doom su baaxee rek papa bii moo ko moom waaye su yaaxee rek boobu moom yaay ji la ñëpp ñu ne sa doom bi yëpp su baaxee ñëpp ay wane suñ doom la ku ko xam ku ko xamul sax waaye ndig ne moom ku baax la rek ñu ne kii diw moom suñ doom la. soo fanaa lii lu am solo jiko jikko yi daal ñu ngi yaaxa yaaxa boo xam ne daal macha allah dina am time boo xam ne foog sa sëy dina am because yow góor bi soo war hmm. a bi am si biti bés bu ah loolu la kon foo dem uti jabar jaral dara te ñeneen ñi noonu lañ ko dee jëlee wax dëgg sëriñ foog naa ne programme bi dañ koo tëj fii tey waaye danañ ko gën a yaatal daal parce que dafa mel ni eh, fiñ ci toll ni waxtaan waa ngi gën a yaatu eh, bon xam naa ne dangaa tàggatoo rek ñu beneen bés bu ay wala beneen jamono ñu dajale waat fi ñeneen indi sax ay ndaw yi Babacar waaw ñoom itamit ñu ñoo bokk ci programme bi waaw mu ngi mel ni fi ñu toll dafa mel ni commencement la rek. ndax kenn ku nekk am na lum junja. Mhm. loo xam ne mun nañ ci waxtaan lu yaatu. Mhm. waaye foog naa ne liñ ko tëjee rek mooy liñ yundu wax. foog naa nit ñi dañ war a delluwaat am value. Mhm. nit ñi daf nit dafa war a fonk boppam. nit dafa war a respect boppam. nit dafa war a am valeur am jom am kersa am lu moo jomba am lu moo ragal. dem nañ ba nga xam ne sax ñu ngi wax ne nit ñi fi mu nekk dañ bugge waaye foog naa ne nit ki loo bugge bugge bugge bugge alal jum munti doon amul benn bu ëpp sa njaboot bugga sa njaboot moo gën loo munti bugga ndax alal ji lum mu bari bari bari eh, mun naa yàqu ci sa loxo buy fukki junne mun balaa weer wi dee mun nga koo lekk mu jeex waaye sa njaboot gi nga xam ne ëllëg yaa ngi leen di bàyyi gannaaw ñu war laa ñaanal boo fi jógee war a def loo xam ne dina doon njëriñ fekk la fa nga tëdda ñooñu yaakaar naa ñoo war a bugga la te jagal leen lu baax la waaye jëndee leen alali àddina dara jaru ko jëndee sa teraanga alali àddina dara jaru ko jëndee sa jikko ju baax ci alali àddina yaakaar na dara jaru ko kon yaakaar naa liñ ko tijjee rek mooy value bi nañ delluwaat fonk suñ boppa te am lu ñoo bañ am lu ñoo nangu am dañ jombale suñu rek dinañu dimbale bu a baax ci lépp ñu ngi xëccu ci suñu It is Gambian brain and heart at work which is why we can identify and understand what it takes to build and maintain trust. It is no coincidence Trust Bank Limited, a Gambian bank, a Gambian managed entity has become the highest employer in the industry. Why does ATM network and with the widest branch network and counting. We believe in putting you first. That is why we play our part in nation building from sports to education and play a meaningful role in complementing government efforts in health delivery. We believe in putting you first because of our innate understanding of your needs to tailor-make products that can only add value to your lives. We believe in putting you first. That is why we have become your trusted partner. Trust Bank Gambia Limited. Proudly Gambian. Di bos na kaspa Bi nga xamee ne amuloo kaspa bu tey lu nga naan ma yow seetaan see ko sa kër. Defal dakka. Ma ne defuma dakka maa bi dafa important torop ci man te dama koy seetaani de. Man yow di lan la ni Qcell dafa indi lu es ah. lu ñoo wax Q power ak Q power mun nga recharge sa cash power through SMS ah wa legi suma ko bëggee am suma gën kenn nu may def <laughs> loo soxla rek moy amal sa Qcell line soko amé ba paré nga register ci sa mita bi wa mun nga sé register bi ñaari mita wa so register sa mita gi ba hmm. da nga xayma ñaata nga bugg jënd nga yónnee ko si 333 dégg su fekkee ne nag kiw power scratch card bi nga amee nga xoos pin bi nga yónnee ko ñu yónnee la sa kóot nga lóot ko am sa kas power sa lampa taal sa télé taal sa kër taal xam <laughs> nga kon gaawal nga dem dugal yi dugalal nekk si gaa nga li ma di toog xam nga nag li ma di wax <laughs> kiw sa dal moo di bakkan ku ko ñàkk dootul ñandu way kiw sa moo di bakkan ku ko ñàkk dootul ñandu ñu ni neen la ñoo bokk réew mi ñu ni neen la bu ñu dara xaajale amut mag amul ndaw amut xeet amut waaso ñu ni neen la nañ soppi jikko yi góor ak jigéen ñëpp a ci em ba ñu yàlla boolee bu ñu dara xaajale ayeen doole dee seetaan ñu ni neen la kon nag ñu ni neen la ñu ni neen la fii si GRTS ajuma bu nekk suy juróom-ñetti waxtu tegee ak genn waal ñu bamtuwaat ko dimanche ñaari waxtu ci bëccëg kon nag bu ko kenn uute Música